benn cas boo xam dafa nekk ci réew mi muy côté célibataire yi bare fi écoulement boobu léegi lu fi nekk célibataire xamul nu ñuy def ba nu wàññeeku. parce que célibataire yi ñoo mooy yóbbuñ te ndaw waxtaanamal mooy célibataire Ziguinchor yi célibataire Fatick jurbel Diourbel Casamance fépp fu célibataire nekk Afrique Europe ñoo toog rek ñu ne ma Tafa waxtaanal loolu Poté parce que Poté comme am na relation aras am na fa ay dugalante génne ba moom saa bu ko neexee rek moom marié amul problème marié wax ak kii yor affaire mariage mu mu gérer xale yi si dëkk bi tamit parce que poto yow mënoo fi nekk yow boo seeyee un mois divorce un mois bi stop yow daal affaire jëkkër yow lay neex da ngay bës bouton rek woo ci téléphone aras yéeg wax ak kii yor affaire jëkkër nga xool jëkkër yi bu la arrangé nga tànn mu wàccee la sa jëkkër waa dëkk bi ñëw dajaloo ree ñëw jëm ca jàkka ji may la mais kooku mais yóbbul dossier yi rek xale jigéen ñi ah yow kat porte sa takkal sa fas say takkal say ay moom yow moom fajoo ma problème mariage moom yow moom yaa dafa doon ko malaaka bi yore affaire de mariage papier de mariage ca aras da yor numéro di wo di tànn say jëkkër di sëy di dépenser di sëy amoo si benn problème mais dimbale yeneen xale jigéen maa ngi yebal xale jigéen ñi yëpp nañ dem kër Poté. ku nekk ko bëgg nga wax moom pote guddee mu jàllale dossier yi ñu may xale jigéen yi parce que xale jigéen yi fii nekk fi célibataire bare na sa xarit ku ma gaaw li jënti nga kay jë may na ah commencé nañ waxtaan kat yaa ngi wax ak malaaka la amoo moom benn problème doo ko dimbale ak bi nit ñu baax ñu fi ne parce kat xam nga ko eh dama ni bàyyi sa wax ji jaru ngay tontu xam nga bu baax xale bi ah yaa ngi am xarit malaaka yi dugalante ñoom bi génneelante ñoom yow amoo yow yow yaay dem ba aras tànn jëkkër xool tànn xool chinois noonu dafa gàtt amul xaalis day tukki du tukki bii laa bëgg malaaka bi paketeel service libre jox ko cag mu indil la ba sa nga taal jël sa jëkkër daaj xibaar na am naa jëkkër foofu nga ko teg ah jàppale xale réew mi kat